sëñ bi waxoon ne isbaana jahra innama shuyuuxu xaaza zaman julluhum fuxuux sëñ Tuubaa waxoon na ni li ëpp ci sëriñu jamono ji sëriñ Tuubaa nee na ay fiir lañ mooy ku ñëw ànd ak ñoom pour dem ci yàlla ñu far téye la ci seen bopp sëñ bi waxaat ne ñi ñu foog ay sàcckat ak i tafukat nee na du ñu ñi nekk ci mbedd mi waaye ndekete sàcckat ak tafukat mooy ñi nga xam ne dañuy tafu xelu jàmbur yi ak seen xol duñ neen wax yàlla duñ leen tegtal yàlla te duñ leen joxoñ yàlla te nit ñi topp leen lool te yaakaar leen lool te yàlla tax te ñoom duñ wane yàlla jël seen xel ak seen xol yóbbu ko ci lu dul yàlla su ko defee ne kon moo tax fexe ba teg sa dund ci li yàlla gërëm lu jafe la kenn mayu ko sa bopp waaye mbaaxu yàlla waaye nit day sabab la jëfee fa nga war a jëfee dana tax itam nit raw ndax boo koy xool dafa mel ni dafa am ci suuf yi yu gën yenn suuf yi yenn bërëb yi gën yenn bërëb yi te loolu boo ko seetloo léeg-léeg dara defu ko lu dul leerug yàlla nga fay feeñ mooy faral ñuy wax loola ndax foo xam ne nitu yàlla daf faa ne waa fa itam ku fa nekk ak moom doo mën lu dul jaamu ak yàlla lu dul jaamu yàlla mooy yàlla danga cay lot daf lay jafe ndax suufu jaamukat jaamukaay yàlla suufu jaamukaay yàlla rek la mu ngi mel ni ki tey jàkka ji kër yi bari nañ lu nekk nag waaye mën na ko defee ci kër yi waaye jàkka ji moom bu ñu fa xasee ba agsi rek maase nañ ne fii bërëbu jaamukaay yàlla la kon nii la amee ci ay bërëb waaye nii la amee ci ay jëmm mooy li ñu la wax nela la ku la gën daf laa gën kilifa ndax ñun sunuk raw mooy nit ñi mujj ci jamono tey xeetu muhammad alayhi salaam seenuk raw tegewul ci lu dul yàlla daf leen booleeg ak yonent bi gën loola seenuk raw ci la ne waaye bu fekkoon ñu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu mën nañu raw waaye duñu raw xeetu muhammad moo tax yàlla dafa am ay jagleem jagle yàlla yooyu nag fu ko neex la koy def nu ko neex la koy defee xam-xam bii ñu yor tey te di ko dund ci la bokk jagle yàlla la ndax nit a ngi jàng ba sonn taxul mu am ko nit a ngi tukki di ànd ak ay sëriñ taxul mu am ko nit a ngi bejjaaw ci diina di sàkku yàlla te taxul mu am ko mën nañ ne loolee yépp ñun fekkuñu ci Cheikh Moussa boo ko xoolee danga naan ñi jàngul ci saa yi te topp ko ñoo ëpp ñi jàng te ànd moom ñu néew lañ waaye nag li mu yëkkati du alalu ku jàng du alalu duñ ne jàng moo koy maye duñ ne ñàkk jàng moo koy xañ mooy tax nga ñàkk ko déedéet moom aw ci yoon bi rek ak nangoo doon ak taalibe nit ki bu nangoo jaayante nangoo doon ak taalibe lu mu bëgg mën na ko am nit ñëw na ba tàyyi joxe xaalis sax ci jamono Cheikh saa ba fi ñu toll waaye Cheikh Moussa ko ko mos def mu gàntal daf lay wan ne li nga bëgg xaalis jaru ko su ko jébbalu rek ak doon taalibe moo tax fi ñu toll sax léeg-léegi sax nga dégg ñu naan diw gindi na nit def ko nii def ko nii laaj ko xaalis waaye loolu Cheikh Moussa mos ko def yàlla dafa jarul xaalis bu jarul xaalis kon ñëpp am ko yàlla jarul xaalis bu fekkoon lenn lay jar te wees na loola waaye faw ñu tënk ko bu fekkoon am na lu mu jar sa bakkan la bu jaratul sa bakkan leneen jarul yàlla leneen loo jox rek du njëg gi moo tax ku ko am ci yërmande yàlla la waaye du sa coobare du sa sañ-sañ su ko defee nag moo tax doon ak taalibe nekk lu am solo xam-xam yoon wanu koy amee mooy yoonu taalibe waaye du beneen yoon bu ak taalibe amul rek am ko day jafe wala boo boo ko amee njëriñ du fa juddoo loolee moo tax nag tërbiya mënta ñàkk ci nit ndax nit dañu koy defar ndax ndab la te dañ caa war a def ndab li nag nu mu mel ak nu mu dikkee rek lañ ca war a def noonu lay toll moo tax sëñ baa ngi wax naan Cheikh Moussa ku ñaw la ku ñaw la ci lii mu joxe ak ni mu ko joxe wax na dëgg xool xam-xam bu ñuy yilifee jamono boo xam ne ku yàlla bind xakke sa yaa ko yilif te yaa ko tiim kon xam-xam boobu dafa laaj kuñ koy jox ak kuñ ko dul jox loole nag mooy tax nag ka koy jox bu fekkee defaroon defaru gi ñu bëgg subaa kon ndab la loo xam ne lu nekk mën nañ ko koo dénk parce que du yàqu te lu yàqu mu defar ko bu fekkee nag na nga mel na nga bëgg mu mel melu ko su boobaa nag la nga yoroon ci xam-xam mën nga koo téye ndax boo ko joxee mu yàq rawatina ak ndaw deretam dafa tàng ay atam tollul noona kon loola moo tax kon xakk sa day dox danga koy bàyyi mu dox danga koy bàyyi mu laabal bakkanam jéem a yaru jéem a tàggatu li mënta ñàkk nag nga xam ni mooy suru bi lépp ngi ci biiram te mooy laa ilaha illa mooy tawhid mooy xam yàlla yàgg nañ laa misaal ne la garab la waaye garab la boo xam dafa ami banqaas banqaas bu nekk ak meññetu boppam diggante mi nag bi ngay amee garab bi bi ngay yëg ci garab gi bay jot banqaas yi banqaas bu nekk nga laal ko dana def ab diir loolu mooy dox gi boo ca yéegul nag boo ko làmbaatuwul boo ko sàkkul su boobaa nag xam-xam yam àndal wala meññet yam àndal su boobaa doo ko laal waaye nag dafa am lu koy maye de laa yamasahu ilal mutahharuun loolu la ba mu koy wax de dañ yaakaaroon mooy kaamil alxuraan bi waaye déedéet kaamil alxuraan bi boo jàppul waroo ko laal la boo ko laaloon am ci bàkkaar waaye am na ci loo xam ne nag xakk saa moom boo laabul danga nga koo mën a jot danga nga koo mënta jot la secret suñu boroom rek la loola baatin la loola xol la du ko laal mukk ndere ku laab ku laabul moom danga ko mënta laal doo xam fu mu ne loolu nag moo tax lii moo tax nitu yàlla yi fa ñuy jaarle seen nit ñi di leen fa jaarale ngir nag am lu ñu bëgg a def ci ñoom su ko defee nag ku nekk nag na nga jaayanteeg ñoom ñoom it lañ yor ak lañ la war a jox noonu lay demee njëg ga nga joxe rek nu mu toll rek la nga waram ci xam-xam noonu lay toll moo tax ñu ne Sëriñ Tuubaa daan na wax ne bu leen ma sikk sikkilal lawbe bi lawbe bi moo yett këll yi këll bu nekk lim antan nag laa cay def këll yi mooy xol yi xol yi dañ ëppante doole dañ gën a yaatuwante dañ gën a setante kesa loolee nag bu ci jaaykat bi kesa mais loolu ci ñi ñëw la ak ni ñuy ñëwee Sëriñ Tuubaa daan na wax ne bu ma sooboon boo fi toogee boo ne asalaamaaleykum ma ma nangu leen jëbal balaa nga fiy jóge su ma sooboon xakk saa ma def ci yow li nga soxla mu jël leer yàlla tàbbal ko ci yow waaye nee na gor loo ko jox te sonn ci du ko yëg am na ca nag ñoo xam ne ñëw nañ ci Sëriñ Tuubaa jébbalu ci moom Sëriñ Tuubaa gestu gis ci seeni ginnaaw ay matuwaay yu bari Sëriñ Tuubaa ne leen seen matuwaay lu ko tax a jóg ñu ne ko fas yéene liggéey ba dee rek ak sàkku sa ngërëm wan ko ne ko ñëw nañ te soxlaatuñ fañ bàyyeekoo yàllaa ñu tax a jóg ngërëmal yàllaa ñu tax a jóg te ci yow lañ koy sàkkoo jaral nañu lu ne nag sëñ Tuubaa ne noonu la demee ñu ne ko noonu la demee sëñ Tuubaa ne ñibbi leen dem leen toog naa leen fa fekk waaw Cheikh Issa Dieng la waaw mu dem ñu dem toog sëñ Tuubaa fekk leen fa nit ñëw na di jàng alxuraan kesa diir bu gàtt ñett fan ca gànnaar sëñ Tuubaa sol ci moom alxuraan ci ñett fan rek mu mokkal alxuraan bi di ko tëri naka noone bëggoon na ay nit mokkal alxuraan mu sas leen xakk saa su bëggu na ñetti xisib ñu di ko jàng ñu di ko jàng ba nii lañ mokkale alxuraan kon ku nekk ak nañ lay yare docteur bi nag na mu yaree moom moo ko xam waaye boo xamul pas-pas yi boo xamul xol yi ak lëm ëmb xakk saa ak fuñ toll ak ni ñuy dundee loola boo ko xamul waroo taxaw ci kanamu nit ñi waroo jiite kenn ndax nit ñi dañu feebar te bokkuñ feebar feebar bu nekk ak koy faj moo tax doon sëriñ yombul lu jafe-jafe-jafe la léeg-léeg ma toog ba ci yàgg ni jamono juñ toll day xakk sa est-ce que am na lu man ñetti sëriñ ci ci bi wala ci Sénégal est-ce que am na lu mën sëriñ dafa jafe de da nga am xam-xam da nga ragal yàlla danga jub xakk sa da nga mën a wane yàlla te tegtale ko da nga mën defar nit te defar nit lu jafe la ak jafe xakk jub ba dootoo yàqu yow ci sa bopp sax loolu ak jafe motax doon serigne du ndam nit ki war ko yitté wo nit lim wara yitté wo moy na fexe am xam-xam liko war digënté mak boromam na mat bés bu ko boromam wóoloo nag ba ne ko toogal ma ci kanamu jami yow la bëgg waxal maa la tànn su baba nak baxna na mënatu ko daw amana bu ko dawon sax ñu duma ko fa kullu man bi annihi qad baqila fa innahu qabla al mamati yutla loolu mën naa ne waaye nag xakk saa li nit ko wara yitté wo moy na fexe digënté mak boromam na jàpp an yatasaab moo tax ñu bari nag dañuy jaawale xàkk mm, saa li ñuy tuddee ab seex kesa ñu bari xamuñu ko ab seex li ñu ko jàppee tey ak li ñu ko def tey ah bokkewut ak la ko mag ña defoon ak lam doonoon démb léegi de ku mën a wéy ñu ne la seex nga waaye de bëri na kuñ ko wax de waaye yow ci sa bopp moom xam nga ni doo seex xanaa kenn ci la seexal nga mënta wax dara rek waaye yow xam nga ni doo seex ñu la jege itam xakk sa xam nañu doo seex loolu itam leer na nañ sikki sàkk nekku ci waaye nag léeg ragal wax ak bañ a wax moo jàpp nit ñi wala moo la jàpp yow ci sa bopp waaye xam nga ni doo seex ndax boo duggee ci sa biir néeg xam nga li war seex ak li ko warul xam nga fi nga toll itam ci xam-xam ndax gis nga ñu njëkk ñëm mbaa dégg nga leen te xam nga ni fañ tolloon tollo fa lañ amoon amoo ko lañ xamoon xamoo ko loolee nag boo ko deful mooy ci ñoom kon du foofa wala nit dégg nañ ko gane ji nit sax mu toggal ko ñam mu neex rek mu ne ko seexal nañ la nit gane ji na sëriñ gane ji na nit mu ataayaal ko ataay bi neex mu ne ko seexal nañ la sëriñ ñëw na ci ak taalibe mu ne ko carte crédit laa bëgg mu ko carte crédit mu ne ko seexal nañ la sëriñ ñëw na ci ak taalibe mu ne ko ba mu wutalee ñeenti nit yu waat ci man ma seexal la mu wut ñeenti nit yu jébbaluwaat ci sëriñ bi sëriñ bi seexal ko lii de du lii la Seex Musaa waxoon du lii la Sëriñ Tuubaa waxoon waaye du lii la Yonent waxoon dedet loolu du ak cheikh loolu yama neex rek la motax amna am ku koy wax ne feex la séexaluñ la way dañ la feexal lele léeg xa damay xalaat ne la koy def ba diko def moy sëriñ bi bu fekke xam beuri wut amatul lu wax talib bi daf koy day bëgg bi noppal ko ndax bu ne ko cheikh nga rek mu noppal dootu ko laaj dara su ko defee nga dem sa yoon mu dem sa yoon sa musa nag dindi fi li moko ko taxoon wala ñu def ko ci ak tur wala ak sante wala ak kala wala ak yere sa musa ne du li yep nak lan la mu ne ak seyxu ko xam-xam la xam-xam la boo xam ne xakk saa xam mu mat la te muy xam yàlla xam-xam boo xam ne boo ko xamee dootaa yàqooti ci màndarga yi bokk waaw dootaa yàqooti da ngay sax ci ak jub dangay sax ci bëgg yàlla ci ragal yàlla ci delloo sa bopp yàlla kasa ci lii ngay dem ci lii ngay dem ci lii ngay dem xakk saa ba dootaa yàqu ba koo dajalati mën koo mën koo defar ndax wa daaxiyan ilallaahi bi iznihi dafa am mooy wooteel yàlla waaye ci ndigalal yàlla ci ndigalal yàlla la ngay def da koy teg ci ay ndigal waaye du caagan da ngay dem ba neex la moo tax kon nag du lu yomb lu jafe la su ko defee nag moo tax nit nag ab sëriñ bu bëggee defar nit bëgg mu tege foofee daf koy jaarale ci yoonu xam-xam foofee nag du dem ba mu neex ko sax mu ne ko seex nga de sëriñ bu mat sax du ko def waaye awale gi mu koy awale ci yoon ak fa koy teg xakk saa kooku mooy dem ci xam-xam dem ci xam-xam dem ci xam dem ci xam ba kenn dootu ko yedd am na ko fi wax sànq ci ginnaaw kenn dootu Pa Modou la dootuñ la wax li ngay def dootoo sukkandiku ci kenn parce que lépp loo def da koy teg ci xam-xam muy xam-xamu leer mu mat loola nag xakk saa yaay dem ba dootu laaj sëriñ bi dara ndax la nga waroon xam ñëpp da koy xam sëriñ bi moom it xam na ni xakk saa la mu bëggoon am na ko walla sëriñ bi tontu woon na ko xam doon waxtaanal ne ko nit boo ko defaree ba mu mat kañ bàyyi ko mu dem ah loolu lañ ci bëgg bu fekkee mat na la nga bëgg ci moom am nga ko bu ko neexee bàyyi ko mu dem bu amul nag sañ nga koo téye waaye bu demee ba mat nag mën nga ko bàyyi mu dem kon nii la mel loolee nag kon jarul visé te jarul yàkkamti li am solo mooy dox ci xam-xam dox ci dëgg sa xam-xam na nga ko xam te na mat na rafet na ko jëfee na nga sàkku ngërëmal yàlla li ci des bu ci sa yoon ne jarul yittewoo ak yu bare bari mooy yenn yi nga xam ne nit dañ koy tiitaroo ci wàllu kurus sama saade daan na wax ne du xeexal ñaari dàll am na kuñ ko def muy sëriñam nag sama saade daan na wax ni du nas sa kurus muy génne ndox lii yëpp sama na ko sama saade daan na wax ne du xaatim muy dënn asamaan si dënn sama saade nee na yëpp du ak sëriñ lii lépp du xam-xam lan mooy xam-xam mu ne mooy yàlla kese xam yàlla rek te teg ko fa nga ko war a teg loolu rek doy na ci xam-xam yar sa bakkan te yilif ko moo tax may faral di wax ne ki naan la di la ñëw naan la pee yàlla sàngam boo ci jógee fii nga jëm kesa pee yàlla sàngam boo ci jógee fii nga jëm amul solo waaw tasawuf maqaama sàngal ak maqaama sàngal léeg-léeg nga gis ñiy wax tasawuf ak di ko jàngale maqaamaatul yaqin fii ngay jógee ñëw fii fii ngay jógee ñëw fii tasawuf ba góor yàlla ba tolloon fii loolu du tasawuf tasawuf duñu ko wax tasawuf dañu koy dund xam-xam bu ñuy dund waaye du lu ñuy wax jàng ko ay këy nit yàlla moo def li moo def yow loo def yow loo xam yow foo toll kesa te noonu ñu ko teglandee sax daa wóorul yow nit ñi ñuy dox ci yàlla bokkuñu ñuy doxee ci yàlla kesa bokkuñ fu ñuy taxaw ak fi ñuy taxawee xakk sa ku nekk ak li li li ko wax ne istixdaat ak amzija bokkuñu dafa am yoo xam ne bokkuñu ko ku nekk na ngay doxee ci yàlla ndax kii xiif moo koy jëriñ ci yàlla kii saraxe moo koy jëriñ ci yàlla kesa kii dëkk ak nitu yàlla moo koy jëriñ ci yàlla ki dem ca tool yi moo koy jëriñ ñoom ñoo ñëpp na nga bëgg leen tënk ci benn yoon ne nii lañ war a doxee su boobaa yaa ngi bëgg a juum du noonu de kasa dafa am yoonu boppam kon nag moo tax nitu yàlla bu nu ko waxee loolu rek ñu taxaw ñu wax ko cheikhu tërbiya bu ñu ko waxee lii rek a tax yoon yi nga xam ne bu la ca awale da nga mucc ci yeddeel ci zahir ak ci baatin loolu rek mooy ak sëriñ foofee nag mooy fi ñu awale laa ilaha illallah de mooy saafara bu mag bi jàngaro ju mag yi itam moom lay saafara jàngoro ju mag nag mën nañ ne bu dañu ne mboolem jàngoro yi ànd ak moom du ñàkk nag yi nga xam dafa nekkoon ci sa sidit yi nekk sa deret yu mel noona di génn benn par benn yi di génn di génn di génn su ko defee mooy waral xakk sa yedd gi ñu lay yedd ak fàttali gi ñu lay fàttali ndax bëgguñ ñu ne la nga nga dem ba mel ni koo xam ne dafa wér ci ak feebar ëlbati ko melaat ni ko feebar walla amul solo mooy la sàmm saa daan wax naan bu leen fi jóge di muut suuf que amul solo yow yafal nañ la jox nañu nga lekk ba suur la nga war a lekk nga lekk ci ba suur ëlbatiku daal dem wokk ji ko dem di muur suuf muur suuf mooy nga dem laal lu dul yàlla ah lu dul jëmmi yàlla ji que loo xam ne dara yàlla nekku ci loolu mooy muur suuf yàlla kañ boo ko amee jeex na li ci des na góor góorlu nag xekk sa ba fexe ba jëriñoo la nga xam rek yooyee nag mooy meññet yi mooy banqaas yi baat yi ñu jàpp te di ko tudd ci la bokk parce que kii dem ci yàlla li ko mën a yàqal moo bari dañ naan seytaane wala ñu ne bakkan wala yu mel waaye daal jàpp na lépp lu lay yàqal rek xekk saa mën na laa dikkee nu ne léeg mu doon nit léeg-léeg du doon nit léeg mu doon xalaat léeg mu doon ci ak jotaay léeg mu doon alal léeg mu doon lu ne waaye jàppal ne luy dox sa diggante ak yàlla luy dox sa diggante ngërëmal yàlla rek loole na ko fa yéene dàq te teg ko fa te wan ko ginnaaw te fas aw ci yoon wi nga xam ne boo ci awee jëriñ so ko defee nag ci nii ngay demee ci nii ngay demee ànd ak nag du ñàkk nga am ay ngànnaay ngànnaay nag moo tax ñu naan laskaar yi jàpp ko te di ko sikaar ndax seytaane mu nekk la lay dikkee dana jaar ci sa jimbax dana jaar ci sa kàddu dana jaar ci sa loxo dana jaar boy dugg ci wanag dana jaar boy tëdd ci kaw lal dana jaar fu ne pour bëgg laa yàqal ñu bëgg na nga sàmm sa bopp parce que seytaane boo wàccul yoon fekk sa yoon bi boo ko wàccul mënul ci yow dara dafa am loo dañ la ko sant bëgg nga def ko am lu ñu tere bëgg nga bàyyi ko su ko defee nag la nga xam nag fa lañ fañ la wax ne lañ la wax ne la def ko boo ko deful rek boo naree def leneen kon su boobaa nga dajeeg leneen loolee moo tax yoon bi nga xam ne moom lañ tracé ku ci aw doo dajeeg lu la metti ndax euh, man faala ma shaa laqi ma saa kesa waaye bu fekkee ne da aw ci liñ bëgg nag su boobaa nag la nga doon daw su boobaa dootu la laal ndax Sëñ Tuubaa daan na ko misaal li nga bëgg ak li nga bañ li nga ñeme ak li nga ragal boo demee ci li nga xam ni moom lañ la sant bàyyi liñ la tere fekk saa su boobaa la ragal danañ la ko warlul dootu la jege te dootu la laal te dootu la daw yoon àjjana boo ca awee fekk saa su boobaa seytaane daf lay daw safara daf lay daw yoonu safara itam boo ca awee àjjana daf lay daw sa yoon boo aw rek beneen bi daw la kon nag moo tax ñu bëgg na nga aw ci dañu ko misaal la siraatal mustaqim dañ ne yoon la boo xam ne dafa sewee ni lañ set kesa dëngee ni jaan kesa ñu gàcce ko ci kaw safara guddee itam guddaay juróom fukki junnay at siraat nag du lu ñuy jéggi bu ñu faatoo de ñu xam yàlla ñoom faatu nañ ba noppi keroog bañ jébbaloo keroog nga commencé jéggi siraat jamono bu nekk da ngay jéggi siraat da ngay jéggi siraat da ngay jéggi siraat ba xëy nga dajeek yàlla ñu ngi ko gàcc nag ci kaw safara safara nag xakk saa boo ci daanoo nag du baax suba gu nekk nag lu lay daane mu ngi fa waaye nag yaay am fulla yaay am yaay xool fi ngay dëgg sa tànk boo amee nag lu la dimbale te xeetali la xakk macha allah xisaab moo tax nga dégg dégg nga ko sax ci li ñu la koy léeboo ci siraat dañ lay wax naa la siraat boo koy jéggi am na ci ñoo xam ne danañ am njëgu gëlëm lañ jëfoon ñu ko tëggee ba mu mel ni gëlëm ñu war ci seen i jëf nag la ñuy soppi mu mel ni gëlëm ñu war ci yéeg ñii ñu soppi seen i jëf mu mel ni xar ñii ñu soppi seen i jëf mu mel ni yoo am na ci ñoo xam ne seen jëf du dañuy dajale di cotiser buñ cotiser bu matee jëmmi gëlëm ñu jël fukki nit tegandoo leen ci kaw gëlëm bi ñu mën a jàndal noo siraat xanaa lii lépp la war a doon boobu kon lu nekk lu jege la yoon woowu nag mooy yoon wii ñu aw mooy yoon wii ñuy dox moo tax sëñ bi daan na wax ne bañ nekkee ca toole ca jamono Cheikh Moussa di liggéey di liggéey ba mu tàng ñu sonn lool sëñ Ibrahima Cissé moo wax ne lii de comme jéggi siraat mu ne Cheikh Moussa daal di koy tontu ne ko ah kañ seraat la jéggi siraat la ku ko jéggi fii doo ko jéggi fan jëm moo tax is yegg si bu nal muridina saadaati dañ lay fàggul ak texe dafa am loo xam ne boo ko deful fii def ko fële def ko fii moo boo ko defee fii da ngay noppalu waaye keroog yémal xam danañ gis àjjana danañ gis danañ gis yàlla kesa ca la ñuy jéggi siraat gisal yàlla fii te jéggi siraat fi te noppalu kesa loola moo gën a noppale moo gën a féex ndax kat luñ la dencal fële am na fii safara luñ la fa wax am na fii àjjana luñ la ko wax am na fii yàllay àllaaxira mooy yàllay àddina yàlla du ko sori yàlla ku jege la waaye yàlla na fekk nag xakk saa nga am ku la ko wan nga mën koo gis am ku la ko wan waaye ku jege la kesa lii kiy dimbale nit ñi bëgg leen awale ci yoon wi nga xam ne ci la góor yàlla lay awoon lii rek lay yëkkati waaye du leneen lii mooy woote bi Seex Musaa mooy wan nit ñi seen borom tegtal leen yàlla bañ teg yàlla fañ ko war a teg te mooy tawhid rek noonu ñu ko waxee ci ginnaaw ne xakk saa tur wa la ak melawa ak jëmm ja ak jëf ja tur tur yàlla rek ay tur beneen tur woo tur du du dëgg te nag na annama lépp loo xam ne du yàlla xakk loolu loolu الله حال واخنا كو وانما من دوني هو الباطن ان الله هو الحق يالا موي دغ لودول يالا نين لا مي كن جخنا تاك لودول يالا نين لودول يالا نين لا كون جخنا كون يالا ركاي دغ تورم موي دغ بنين تور دو دغ جيمم جي موي دغ بنين دغ جيم دو دغ كسا نين لا اموت ملو يالا موي دغ بنين ملو دو دغ كون لي نك مونو گم با نوبي نك البتي كو نك گيسنا لين خمنا لين لا لا كاج بوكو واخي كون لا nga waxon firi wat nga ko man motax kon xam yàlla day li jafe waaye nag bu la ko yàlla baaxee ne kon santal yàlla jëfeel sa xam-xam sellal sa xam-xam te fas yéene xakk sa xool ña doxoon ca yoon ba nañ doxe woon rek xam-xam daal jëfee ko na nga ko war a jëfee boo ko mënta jëfee na nga ko war a jëfee bu fekkee àggoo fa xoolal ña la jiitu woon ca yoon ba nañ doon doxee ak loo ko jëfee jëfee sax nga la dafa am solo loolal mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye itam mooy ne Seex Musaa daan doxee moom moo aw ci yoon bi de waaye ku dul moom awoo ci yoon bi xool ko nag te di ko roy nag te di xemem nam daan dunde nag dana tax fam àggoon nga àgg fa